Yatma Fall maa ngi lay nuyu maa yaa jiite fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées muy kuréel gi nga xam ne moo ëmb association yi jaboote euh, nit ñi nga xam ni dañuy dundu ak laago alors euh, jamono yële euh, génnoon ngeen fi ci presse bi di wax ni que dañu leen a fàtte ci taxawu bi nga xam ne jagleel nañu ko askan wi nga xam ne mbas mi dafa am njeexital ci ñoom président de la république ci àllarba ji ci conseil des ministres mel na ni ku jubbanti yëf fi ndax wax na jëwriñ ji Mansour Faye nga xam ne moom la dénk loola yépp na ko xoolaat te boole leen ca loola ñu njortu ne jur na mbégte ak xel mu dal ci yéen. absolument dëgg la soxna si ginnaaw buñ la fayoon nuyoo loolu président de la république def ci conseil de ministres am na solo lool pour ñun waylaago yi loolu moo tax euh, fédération bi nga xam ne moo ëmb kuréelu waylaago yépp mu ngi lu kàdd yooyu nga xam ni président de la république yëkkati na ko te duggule vraiment il faut ñu nangu ne tam président de la république Macky Sall depuis mu ñëwee ci réew mi ba léegi mu ngi def ay jéego yoo xam ne mu ngi dalal xelu way laa koy kon nag ñu ngi ko ci gërëm di ko ci sant mais comme ni nga ko waxee euh, ñun ñoo waxtaanoon barki démb ñoo ne woon kat il faut ñu attirer attention kilifa yi ci ne kat am na lu ñu gis ci terrain bi loo xam ne baaxul euh, dalul xel ndax dañu wax ni ndimbal li nga xam ne moom lañ jagleel ñi nga xam ne feebar bi daf leen a laal maanaam daf leen a impacté muy ñuy wax vulnérable yi ñooñu bu ñu xoolee ci registre national unique bi ñu nekk ñun jàppoon nañ ne handicapé yi nga xam ne lu mu bon bon am nañ carte d'égalité des chances ñu ngi woon ci registre national unique bi mais bi ñu demee sur le ba xool gis nañ ne registre national unique boobu amul handicapé yu am benn handicapé bu am carte d'égalité des chances bu ci nekk te pourtant carte d'égalité des chances dafa nekk ci fichier boo xam ne fichier wu état bi la mu nekk loo xam ne lu ñu jaaxal la loolu moo taxoon ñu xawoon yëkkati suñu kàddu ñu ngi joxe kat waaye bu a fàtte handicapé xam ne dañu am carte d'égalité des chances waroon nekk ci RNU bi nekkuñu ci RNU bi parce que il xam ni

million ménage boobu ñuy wax ne dañ leen di jàppale. Hmm. million njaboot googu. lu juróomi téeméeri junni ak lu topp mu ngi ñu xam la te ñun dañu waxoon suñu nit ne comme yéen am ngeen carte xam nañ leen jarul ngeen di dem di buuxante ñeneen ñi lañ waxoon dañuy def ciblage communautaire mais à l'arrivée ñu gis ne loolu amul moo taxoon donc yëkkati suñu kàddu moo tax tam dañuy santaat yàlla ginnaaw bu ñu kilifa yi déggee ba président wax euh, ministre Mansour mu rek loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu a a hmm. euh, euh, a jàpp ñoom la ñu waccoon ginnaaw ci ndimbal loolu. Euh, cinquante mille mooy fukki junni. Mhm. ak juróomi junni. Mhm. juróom fukki junni kon juróom fukki junni. waaw juróom fukki junni ak juróom. ak juróom voilà juróom fukki junni ak juróomi nit. te loolu sax lim bu ndaw la par rapport ak ñi war a am carte bi mais ñooñu dèjà am nañ carte bi xam nañ leen ba pare. Mhm. ñooñu la ñu moom dañ leen tëboon moo tax ñooñu ñu ne na ñu delloowaat leen. Mhm. ci biir registre bi même digloo ni président de la république waxee. sax jéggi na ñi nga xam ne am nañ carte d'égalité des chances loolu dafa wax ne wayal yi a juróom fukki junni yooyu ak euh, juróomi junni yi nga xam ne am nañ carte ñu waroon def ci ñu waroon def ci RNU bi mhm. léegi jàpp nañ ne ñoom dinañ dugg ci RNU bi mhm. ñeneen ñi nag ñi nga xam ne amuñu ko ñu xool li ñu def ciblage communautaire bi ñu dugal leen ci pour ñu mën leen indil ndimbal loolu nag buñ koy wax c'est pas parce que nit ñi dañu laaj ndimbal rek ñun ñu laaj ndimbal soxna si foog nga xam ni ñu réew mi tëddee handicapé yi dañuy dund jafe-jafe yoo xam ne lu ci bari tax na seen dem école dafay am koor hmm. seen liggéey dafay am gàllankoor seen bokk ci réew mi dafay am gàllankoor ba nga xam ne ñu am chance dem école duñu am chance def formation duñu am chance def métier hmm. te ku amul métier doo mën a liggéey hmm. te boo handicapé amoo beneen solution bu dul dem kaalal sa loxo donc lu bëri ci handicapé yi même bu leen neexul même bu ñu neexul ñun dañuy nekk ci mbedd mi di yalwaan te boo nekkee ci mbedd bi nag ak feebar bi ni mu bindoo mhm. mën nga koo jël ci ku nekk mën na laa jox feebar waaye it mën nga koo jox ku nekk mhm. kon ñooñu ñun dañ a mhm. nga xam ne boo ko ne demal toog ci kër gi war nga ko accompagner dimbali mu dundee ba mën a toog këram lu mel noonu moo taxoon ñu doon wax ne bu ñu fàttee way laago yi ci dund bi nga xam ne ñi ngi koy dimbalee ñi nga xam ne dañoo ñëw doole alors ci wàllu liggéey bi nga junj léegi a def ay jéego euh, ci wàllu woowu ba tax sax ñenn ci ñi amee laago ñu tàmbali di leen gis ci yenn société nationale yi fonction publique bi naka noonu ndax loolu mi ngi wéy ba léegi waaw d'abord li ñu war a rafetlu mooy li ñu war a xam kon mooy ne loi protection sociale déjà waxoon na ni saa yu nguur gi di def recrutement ci fonction publique quinze pour cent war nañ ko jagleel way laa koy quinze pour cent nag yeggaguñ fa waaye ay ñun handicapé yi ñu ngi rafetlu li nga xam ne état bi mi ngi koy hmm. jii bari na yoo xam ne ay agent de l' ay fonctionnaires yoo yoo xam ne ay handicapé lañ état da leen recruter loolu am na ci fonction publique il ñu nangu loolu hmm. parce que xam nañ li fi xewoon démb ak bërki démb ak li fi xew tey donc ñu ngi rafetlu li nga xam ne état bi def na ko recruter lu bare bare bare bari ci ay handicapé tey jii ñuy liggéey ci fonction publique. Mm. matal matalaguñu nag quinze pour cent. te bu ñu continuer effort yi état di def yaakaar nañu ne fi ñu jëm mooy matal quinze pour cent. Mm. ensuite am na société nationale yoo xam ne aussi ñu ngi jéem a def ay effort di recruter ay xale yoo xam ni dañu amee laago boo jëlee société bu mel ni Dakar dem dikk tey jii boo duggee ci kaar da gis ne bëri na ay receveurs yoo xam ne ay way laago lañ. Mm. boo demee ci société privée yi ñoom ñëpp entreprise privée yi tamit ñu góorgóorlu recruter xale yi nga xam ne dañu amee laago mm-hmm. jàng am formation war a a liggéey ñun kat soxna si mm-hmm. nangu nañ ne dañu amee laago lu ñu yàlla teg la mm-hmm. nangu nañ ko amul benn problème waaye li ñu ba li ñu li ñuy bañ mooy ñu yaakaar nañu dañoo nekk poids pour société bi bugguñu nekk poids pour société bi lu ñu bëgg mooy nekk acteur nekk ñoo xam ne tam dañuy contribuer ci li nga xam ne bi eh, day jëmale maanaam fexe ba école jàng école yomb ci ñun way laago yi fexe aussi ba liggéey yomb ak yu mel noonu loolu dina tax ñu dinañ mën a indi tamit suñu contribution ci tabax bi nga xam ne ñu koy tabax suñu réew mhm. justement foofu laa doon bëgg a ñëw bala ñu yegg si ci njàng mi ñeel euh, tu tànk yi euh, tey ndax am na ci loo xam ne yéen a ngi ciy xalaat wala yéen a ciy liggéey ba xëy na gën a wàññi yelwaan gi ndax euh, naam wax nga ko sànq neexu leen mais ñu ba ñàkk pexe moo waral dañuy toog si mbedd bi di tàllal loxo yu mel ni wala yu mel même nguur gi sax bu indee ndimbal ngir euh, woyofal euh, yan gi euh, du tee dana am xëy na ñoo xam ne danañu am jafe-jafe lool ngir mën a dund dund boo xam ne bu mucc ayib lay doon wala en tout cas dund boo xam ne bu bu normal la alors est-ce que am na ci lu ngeen nekk di xalaat wala di liggéey ngir gën a taxawu ñuy amee laago. waaw loolu mooy sunu liggéey moom quotidiennement. Hmm. daañu xëyee ñun en tant que kuréel bi ëmb mbootaayu way laago yi yor kàddu way laago yi. suñu liggéey yëpp ndax bu ñu fàtte ne ñun ay organisation privée lañ mm. donc suñu mission du tabax école du tabax ay centre de formation loolu mm-hmm. mooy ko état di mm-hmm. yoo xam ne ay sénégalais lañ kon ñëpp ay citoyens lañ daf dañu am ak ak yelle pour école yooyu dañu am ak ak yelle ci centre de formation yi mel mm-hmm. moo tax ñun ñu def li ñuy wax ay programme de plaidoyer ay programme de sensibilisation ay programme d' information ay programme de formation loolu suñu liggéey au quotidien ñu ciy liggéey pour fexe ba nga xam ni école boo dem tey euh, xale bu am moo xam dafa silmaxa moo xam moo xam day raag wala dafa yor pus-pus dina mën ñu fexe ba nga xam ni jàngalekat yi aussi nañ leen mën a tàggat ba a jël en charge xale yu mel noonu centre de formation yi noonu yeneen domaines yi tamit ñu fexe ba mu nekk li ñuy wax ci tubaab des domaines inclusifs mm. tabax bi nga xam ne ñu ngi koy société bi tamit ñu sóoraale ne am na handicapé yoo xam ni dañu amee laago ndax tey xam nga Sénégal ñi ngi defar terre ñi ngi defar BRT ñi ngi defar ay pont ay autoroute ay autopont yooyu ay mbir la yoo xam ne ay citoyen ñoo ko war a jëfandikoo mm. te ci biir citoyen yooyu waruñu fàtte mukk ne am na ci ñoo xam ne dañu amee laago mm. donc ñu ñu liggéey mooy fexe ba ñuy def loolu di fàttaliku loolu mm-hmm. di leen di bàyyi xel di leen ci sóoraale loolu mooy inclusion d'accord alors ñu ñëw ci gone yi am na ñu war a euh, tàmbaliwaat njàng mi ñaari fan ci weeru juin ñi nekk classe d'examen euh, yaa ngi doon euh, wax itam ne tout tànk yi amee laago sóoraale wu ñu wen lool ci programme yi ñu tegoon bi jamono bi nga xamee ne mi taxaw na alors est-ce que loolu mun na am njeexital euh, ci euh, tout tànk yi ak itam euh, reprise bi bu waree am ndax matukaay yi yëpp jël nañu ko ñeel gone yooyu waaw loolu moom soxna si am na solo lool am na sama doole yëpp boo xoolee li may xeex yëpp mooy tout tànk yi euh, xale yi nga xam ne dañu amee laagoon doole foofu lañ ko war a def bu ñu bañee ëllëg dund ci société boo xam ne day bëri ay borom laago yi yalwaan wala dund ci société boo xam ne ñii dañuy nekk ci kaw ñii nekk ci suuf war nañu fexe ba nga xam ne ñii nekk ay xale tey am ah, ñu fexe bañ teel leen a jël en charge ñu fexe ñu mën a jàng man a bokk mën a indi seen participation comme ça fii ak fukki at fii ak fukki at ak juróom wala fii ak ñaar fukki at ah gis nii handicapé yi di ko def bu boobaa xale yi handicapé yi dañu ko def loolu nag day fekk ñu suur leen programme yi boo xoolee bi feebar bi ñëweek léegi am na télévision bu état bi créé ñu koy wax apprendre à la maison mais apprendre à la maison ci télévision lañ koy def xale boo xam ni dafa tëx nan lay mën a suivre ab leçon ci télévision loolu mënul nekk xale bi nga xam ne tam dafa silmaxa nan lay suivre émission ci télévision loolu mënul nekk kon ñu wax ne programme apprendre à la maison boobu ci télévision bi dañ ci fàtte woon waaye laago yi dañu fàtte woon ne am na tout tànk yoo xam ne dañu amee laago te ci mbir mi la bokk loolu moo tax ñu attiré waat attention ministère de l' nationale ne ko kat ci disposition yoo xam ne ñu ngi koy jël pour le deux juin bii di ñëw ñu sóor ne ci élèves yi jàng si am na ci ñoo xam ne dañu amee laago wax nañ ni dinañ joxe ay masque dinañ joxe ay gel wala yu mel noonu mais xam nga xale bu ne ci pousse wala xale wala xale bu dul dégg du mën a dem di buuxante wala muy xëccoo ak yeneen xale yi pour am gel wala pour am masque wala yu mel loolu moo tax ñu invité ministère de l' éducation nekkoon a def lu tout pour que école bu ci nekk xale ya fa amee laago ñu créé leen traitement spécial ba nga xam ne duñu leen mën a bousculer duñu buuxante ñu xëccoo bu ñu waree am gel ñu am ko ni ñu ko war amee bu ñu waree am masque aussi ñu am ko ni ñu ko war a amee bu ko ñoom it ñu mën a suivre cours yi ci anam yu daal ñu bañ leen a fàtte comme ni ñu leen fàtte woon ci télévision bi apprendre à la maison mm-hmm. ci euh, ma Fall yaa ngi junj sànq euh, xëy na euh, njeexital bi mbas mi am ci ñi nga xam ne ñoo amee laago waaye bu ñu ci gënee xuus natt ko njeexital gu rëy gi maanaam impact bi fan la ñu ko mën a nattee wax nga ko ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yëpp la dal seen kaw waaye ña ca gën a loru mooy ñi nga xam ne dañoo amee laago te xëy na yu bari mënuñu ko waaw dëgg la xam nga comme ni ma ko waxee boo seetlee rapport mondial sur le handicap nga xam ni organisation mondiale de la santé ko mondial ñoo ko génne rapport boobu dafa wax ni Sénégal téeméeri nit yoo fi jël fukk yi ak juróom dañu amee laa ko loolu nag lim bu takk la boo xam ni jàpp nañ ne bu ñu bëggee réew mi jëm kanam fokk la def ñu boole leen ci kon war nañ ci boole handicapé yi ñooñu aussi nekk nañ lim bu takk boo xam ne nit ñëpp yëgee vulnérabilité ñooñu yëpp la ñu mbas loolu moo tax ñu doon xeex pour que ñooñu aussi seen mën a ñëw comme ni ñu koy joxee ñeneen waaye tamit ñu bari ci ñoom ñu doon góorgóorlu ñu ubbi seen atelier ñu def entreprise privée ñu jël ay initiative privée mm. ñu nekk ci artisanat ñu di góorgóorlu di kurti kurti nekk ay woy ko ñoo ñooñu ñëpp seen activité dafa arrêté bi mbas mi ñëwee kon ñooñu tamit dañuy impacté mm. bu baax a baax a baax ci ci ci ci mbas mi ba tax na fédération bi waxoon ne kat li daal li gën mooy comme gi génn na junniy fonds de résilience économique et sociale ñu bañ ko yamale rek ci secteur yu mag yi parce que dañuy wax secteur transport wax secteur tourisme et cetera waaye ñu bañ a fàtte ne aussi ñi ñu war a jàppale ñu relancer waat seen activité euh, way laago yi ci lañ bokk mm-hmm. tey tey bii wax ak yow rek sànq envoyé nañ ma dossier bu jógee Ziguinchor boo xam ni benn way laago bu fa amoon entreprise bu impacté complètement dafa mujj tëj mm-hmm. li muy donc ñooñu aussi a ne lii uniquement way laago yi lañ ko jagleel muy li ñuy wax traitement spécial parce que xam nga ni presse bi ay entreprise privée lañ mais ñoom tamit dañu impacté loolu moo tax président ne kat presse bi moom dañu leen defal traitement spécial loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci noonu ñu ko defalee presse bi ñun jàppal ñu tamit way laago yi war nañ leen dara ne lii dañ leen koy defal traitement spécial bu ko defee aussi ñu xool euh, ak autorité compétente yi ñi nga xam ne dañu impacte ñu yoroon ay entreprise ñu doon def artisanat ñu yoroon atelier et cetera nan la leen di mën a accompagner ba ñu jëlaat seen activité normale mhm. njoxtu naa ne loolooy message bi nga jagleel autorité yi xëy na nga am loo yónnee euh, ñi nga xam ne itam ñoo amee laago te nga jaboote leen ci kuréel gi nga jiite waaw bi mbas mi ñëwee léegi nag fédération bi dafa tegoon benn benn mécanisme de surveillance au niveau national nga xam ni région yëpp am nañ fa ay ndaw ak au niveau national ñu ngi xool gis nañ vraiment comportement way yi di leen félicité di leen ndokkeel ci comportement bi ñu di leen ndokkeel ci taxawaay bi ñu di kontaan lool di leen wax ne ñoom way laago yi dañu continuer di am vigilance di gën a góor góorlu di gën a am comportement yu rafet yi ñu am ci mbas mi amee ak léegi loolu vraiment ñu ngi koy rafetlu ci ñoom leneen li aussi mu ngi jëm ci autorités yi autorités yi tam ñu ngi rafetlu effort yi nga xam ne ñu ngi koy def waaye rek comme li ma la wax léegi li gënoon pour way laa yi moo ñu am traitement spécial maanaam ñu ne comme mille milliards la mhm. lii daal ah nañ ko jagleel way laa koy waxuñu ñu jël ko jox ñu ko déedéet mhm. dañu wax ne rek na nekk loo xam ni dañ koy réserver way laago yi bu ko defee ñañ ko war a jox ca état ba ñu jox leen ko mhm. ñu toog ak kuréelu way laago yi ñu seet ñëpp ñi nga xam ni kenn par kenn ñi impacté ak ñi ñu war a jàppale ñëpp ñu mën leen a jàppale waaye nag soxna si du ñu jeexal te vraiment encore une fois du ñu rafetlu. Mhm. li nga xam ne njiitu réew mi def na ko ci conseil des ministres. Mhm. mooy wax ministre bi nga xam ne mi ministre Mansour Faye moo yore eh, mbiru ndimbal yi si dugal ci way laago yi loolu tamit lu rafetlu te du te duñ ne guléet aussi ci président Macky Sall vraiment moom ba mu ñëw ci bopp réew mi ba léegi ñu ngi gis ne. am na volonté mu ngi def ay effort pour accompagner way laago yi loolu nag way laago yi tamit xam nañ ko ñu ngi ko ci gërëm di ko ci sant. jërëjëf Yatma Fall ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte mu rëy dalal la ci euh, plateau matinalu Rewmi FM fàttali ni yow yaa jiite fédération sénégalaise des